Le journal de la faille, journal de la journal de la Vous écoutez le journal de la Faida. le journal de la fekk fanweeri simili bi fii ci bayaalu Medina Baye tey la a ngi seen juróom-ñetteelu tomb ci seen yéenekaay bi di seen journal de la fayda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ibrahima TV te Ibrahima TV bu leen fàtte notification bi pour ngeen mën a jot si yeneen i vidéo. ñoo ngi leen di nuyu di leen ne ziara gannaaw bu ñu leen ndokkeele ci kàmm gi ñu ngi am yéene digtal leen li gën a fës ci seen yéenekaay bi di seen journal de la fayda seen yéenekaay bi dikkal na leen ci ñeenti xët ca xët mu njëkk ma tënk na leen mbooleem bopp xibaar yi bokk na ca Medina Baye diggante gàmmu ak gàmmuwaat ak njàngale Mawlana Cheikh al Islam ak ay jeexitalam ya fay jolli ubbite gàmmu gi ak kàddu ya xalif général de Fayda Euh, jëm ci lango ko politique gi muy nguur gi ak kuje gi di sàkku ci ñoom ñu moytu gépp kàddu gu mën a jura fitna te jublu ci yokkute yokkute Sénégal bokk na ci comment kuréel gi ñu dénk lépp lu euh, kuréel gi ñu dénk lépp luy organisation ci yëngu-yëngu yu aju ci faydu bi euh, ñi ñëw ngir def bilan ci gàmmu gi Euh, bokk na ci it dig euh, bokk na ci diggante Baye Niass ak ñoom ñu koy euh, nga xamante ni ñu nga nekk ca dëkk ya ca biir ndox ma ca Saloum bokk na ca gàmmu 2022 ak taxawaay bu takku ba Fidiyaanu la fayda wane ñooma ak seeni jigéen bannaatu la fayda bokk na ci ayubés gannaaw bi ñu gàmmee gàmmu gu mag Medina bàyyi amalaat na gàmmuwaat. bokk na ci it symposium bi ñu amaloon na euh, ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru octobre te résidence Abdoulaye Bayero ñu gën koo xam ci kër gan ak kàdduy euh, Cheikh Tidiane Gadio waaye it bokk na ci wañale gi ñu Eh, seen yene ka di wonale ak medina bay ba ma soso ak legi ci njite fa ak taxaway ñu fa am den yene ka di dikkel na len ak ci ñent lu xata ma symposium bi ñu amalon na ñetti fan japp ñetti fan ci wero ak bu ci residence abdoulaye bayoro ak kaddu cheikh tidiane gadio den yene ka di dikkel na ñu ci kaddu cheikh tidiane gadio moom ministre ba woon bokkoon na ca ña fa doon def conférence moom nag waxtaanam mi ngi ko jëmale woon ci jokkalante Baay Ñas ak réewi Afrique yi nee na Mawlana Cheikh al Islam bokk na ci doomi Afrique yi gën a xeexal Afrique nee na mooy ñeenteelu nit bi gën a taxawoo Afrique ci àdduna gannaaw Kwame Nkrumah Marc Garvey ak Cheikh Anta Diop nee na it Sénégal dañoo war a sagoo Baye Niass waaye it ay njàngaleem dañu ko war a fexe dañoo war a fexe ba dugal ko ci ndal bi nekk bi dikk na leen ci ñaareelu xatma ba tey comment fa mi nga xamante ni e, moo doon def bilangam ci organisation gàmmu gi comment fa di kuréel gi ñu dénk organisation ci mbooleem yëngu-yëngu yu aju ci faydu bi doon na def bilanam ci organisation gàmmu international 2022 keroog talaata fukki fan ak benn ci weeru octobre ca Kaolack la doon jàkkarloo ak taskatu xibaar yi Baye Mamoun Ibrahima Niass di njiit la fësal na jafe-jafe ya ñu jànkuwanteel Euh, mu ngay xam ne ne lu jëm ci wàllu paj mi li ñu leen jébbal ci ay garab dafa néew loolu ndax romb juróom-ñetti million te loolu waaju la jege lañu sàkk woon nee na it matukaay yu ñu jël ci ndox mi ak courant bi doyul mbirum cet gi it loolu moo ca nekk ci wàllu ndox mi sàkk woon nañu ñu jox leen juróom fukki camion yi citerne ndox waaye joxuñu leen lu dul ñaar fukki camion ak ni mbooloo mi meloon Medina bàyyee mbirum cet gi nag moom da gis ne ndox yu bon yi sax dañu doon ball ci li wër jumaa ji sàkku na ci njiitu réew mi président Macky Sall eh, ab forage bu ñu jagleel Medina Baye nee na lu jëm nee lu jëm ci dem ak dikk bi nemmeeku woon nañu ne eh, ci jamono gàmmu gi dugg Kaolack dafa jafe te métti woon lool loolu moo tax ñuy sàkku ci njiitu réew mi président Macky Sall. ab tali buy teggi ba dugg biir Medina Baye ngir yombal dem bi ak dikk bi waaye it ñu defaraat tali yi ñaari doxat na ñu nañ leen ci ubbite gàmmu gi ak kàddu yi xalifu général de la fayda ni ki niñ leen ko waxee woon na ca bopp yéene ci bopp xibaar yi euh, keroog keroog gaawu juróom-ñetti fan ci weeru octobre ba ñaar fukki waxtu ak benn jotee ba te fanweeri simili ca roon tànt ba ca Medina Baye nga xam ne ña nga ko samp ca xarfu jumaa ja waaye ca penku néeg Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass mbooloom jullite mu takku teew na fa ñii jógee Afrique ñaa Europe ñaa Amérique ñaa Asie ak fépp ci goxi Sénégal ca waxtu woowule ca la xalif général de Fayda doon joxe ay ndénkaneem Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass président de l'Union islamique africaine ca colaay ga ma nga defoon dara ju weex tàll Euh, ñu def ca daamine bu doore euh, mu teg ca bopp ba kaala gu weex kàddu yi la dénk woy politique yi nee nañu am taxawaay bu rafet buy bijji jàmm euh, te taxawate mu ci luy saxal jàmmi Sénégal moytoo dugal réew mi ci guuta ak ay giraawaale sàkku na ci nguur gi ak ci kujje gi ñu ànd ak dàll te bàyyi xel askan wi rawatina ci jamono ju tar ji ba bañ fee nekk di ittewoo ay mbir yoo xamante ni amul benn njëriñ waaye nemmeeku nañu it eh, ci ay kàddoom muy ñaaxa kilifa yi nekk ci hadara Ibrahima eh, te muy muqaddam yi ngir ñu gën defaraat seen taxawaay eh, ba mën a waajal ndaw ñu ngir bàyyi leen ndono lu dëggu. Euh, te dëppoo ak njàngaleem Mawlana Cheikh al Islam Al ñëw ci Medina Baye diggante gàmmu ak gàmmuwaat ak njàngaleem Mawlana Cheikh al Islam ak jeexitalam jolli foofale ca Medina Barxamu ba weeru gàmmu teroo ba léegi ca Medina Baye ñu nga fay nemmeekoo ak mbokkoo ci yàlla te mu nekk lu dëggu. di mboku gu dajale ay xeet yu bari bokk na ca ñu dëkkee ca Gànnaar bokk na ci ñu dëkkee ca nigeria bokk na ci ñu dëkkee ca Mali ñu dëkkee ca Gambie ñu dëkkee ca Ghana ñu dëkkee ca Tchad ñu dëkkee ca Russie ñu dëkkee ca France ñu dëkkee ca Burkina Faso ñu dëkkee ca Inde ñu dëkkee ca Sina ak yeneeni réew jaxasoo ak wuute wuute xeet yooyule ak booloo gi ñu booloo bu amee lenn lu muy tegtale du lenn lu du ittewoo gi nit ñi ittewoo nandalu ci géeju leer gi nga xam ne dafa yee liy nelaw ci nit ku nekk te du ñàkk mu nekk yoon wi gën ngir ñu mën a amal xeet wu dal lii moo xiir ña dëkkee Amérique ak ña dëkkee Arabie Saoudite ñu dokk mànde gi xuus géej gi naaw ci jaww yi jaww ji ngir ñëw ci université leer bi ngir raw màggal si judd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waaye ngir ñëw faj mar woo xam ne mel na ndox mbir yéene bi ca ñetteelu xatma bi nga fa fekk diggante bàññi sax ko ñoomin ko yee ca il di Saloum wàcc ko ñoomin ko yee ca poor bu Kaolack léegi nekk na mbir mu feese ci gàmmu Medina Baye ba tax na ñu bëri bëggatuñu bëggatuñu ñu leen koy nettali boobule xew-xew wa ma nga amoon na àjjuma juróom-ñaari fan ci weeru Euh, ba juróom-ñeenti waxtu jotee ca kanamu mbooloo mu takku muy tudd yàlla ak a tagg yonent yàlla muhammad sallallahu sallallahu alayhi wa sallam lu toll ci juróom fukk ak juróom fukk ak ñetti gaal ñoo teer ca waaxi géeju Kawlax jóge ca dëkki Saalum yi ca biir ndox ma ngir ñëw màggal ci judd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yooyu le gaal ay góor ak i jigéen ay mag ak i ndaw ñoo ca doon wàcc ñi leen di tertu ca tertu ba ay ndaw di soldaar ci pays bi euh, ñoo ñoo ko doon amal euh, ñu mën a cee ràññee euh, ñoo xam ne ña nga sol ay ten yu ñuul ñooñu ñooy sababul fayda bu Baye mbay MC da nga fa gisit ñu sol ay ten yu wert ñu gàll ca aw for wu weex ñooñu ñooy tijaanul fayda ñaari kuréel yooyu yëpp ay soldaar yi faydu bi lañu ñoom ñoo doon màcce ngir. teeru gan yooyu le est-ce que wos di ab euh, fanfare islami nga xam ne Cheikh Ousmane Diaw Abdou Barhama moo ko moom moom mi nga xam ne moo taxawal fidyaanu fayda ndawi Cheikh Ousmane Dia Cheikh Ousmane yooyu euh, ñoo doon tëgg junjun yi di tëgg Mawlana Cheikh al Islam waa ndox mi bala ñuy ñëw dañuy dajee ndangaan ca wetu Fimela ba noppi daal di déq wut ci Kaolack eh, keroog ba ñu teeree maire bu Kaolack nekkit président cendre de commerce eh, dalal na leen ci teewaayu ñenn ci njabootu Mawlana Cheikh al Islam ak Komafa eh, bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu góor gi di Famara Sarr Mawlana Cheikh al Islam ci atum 1963 la fanaana ca dëkkub ndox bi di jam ñaajo ak yeneen i dëkk ca ndox ma waaye nee jaar ga fa baay jaaroon na indi la na leen yokkute rawatina seenu ku dugg ci lislaam bu ñu sukkandikoo ba tey ci Babacar Diop fa di kenn ci kapiteeni gaal yi nee na caatum 1990 la ñu tàmbali di daje ngir ñëw gàmmu e, niki ni ñu ko defee caatum ren nii muy xam ne diggante Baye ak ñoomin yi taarix bu yàgg la ndax ca atum 1950 dafa amoon na wopp su duggoona foofu la ca seen dëkk ya waaye ba fa Mawlana Cheikh al Islam demee ci jamono yooyu karaama gu rëy feeñ na fa ah, ba mu laajte lu aju ca wopp sa ba ñu wax ko ko mu daldi leen sant ñi indil ko ndox te teen ba ah, ba ko ba mu ko defee ba mu ñaan ca ba noppi ne leen ñu delloo ko ca teen ba ba loolu amee waa dëkk ba naan sa wopp soosule foofu la doxee jeex tàkk ca yéen kàddu dikkal na leen ci seen ñi ci ñetteelu xatam ak gàmmu 2022 ak taxawaay bu tàkku bi ci jaanu la fayda wane ñoom affaire yi jigéen di bannaatu la fayda jamiyatu Fidiane Sidqin naka jekk dafa am taxawaay bu am solo ci organisation gàmmu Medina Baye ci atum 1992 la ko Cheikh Ousmane Diaw Abdou Barham taxawaloon ci wàllu kaaraange jamiyatu fidyaanu sidqina ak ma gi di fidyaanu fayda dañuy yebal seeni ndaw ci mbooleem këri doomi bàyyi ngir ñu sàmm kaaraange gi waaye it am na geneen kuréel goo xam ne liggéeyu kër yi lañuy ci lañuy nekk ñu leen di wooye banaatul fayda waajaayu gàmm gu nekk fidyaanu jamiyatu fidyaanu sidqina dañuy taxaw ci yeesalaate yi faydu bi nekk fu mel ni Medina Baye Koosi Tayba Ñaseen ak feneen ak feneen gàmmoo ko ren gi jamiyatu fidyaanu siddiqina ci njiital cheikh ousmane diawo abdou barham yo na lu toll ci juróom fukk juróom fukki fidyaanu fayda ak téeméer ak ñeent fukki bannaatul fayda ci kër doomi bàyyi muy muy ñu ñi ak ñu ñi waaye indi nañu it eh, seen boobu li di escavos nga xam ne eh, ñoo doon tëgg junjung yi bi ñuy eh, tertu ñu jóge ca ndox ma bokk na ci liggéey yu mu amal ci pey bi jamiyatu fidyaanu sidqin defar na néeg bàyyi néeg bàyyi ca Medina Baye atum 2006 jamiyatu fidyaanu sidqin tabax na saawiya maam alxaaji abdullahi ñasaale kabire ca Kossy caatum 2007 jamiyatu fijaanu sidqina tabaxaat na kër maam alxaaji abdullahi ñasaal kabir ca Kossy caatum 2007 jamiyatu fijaanu sidqina tabaxaat na bustaanul arifina kër baay ca Kossy caatum 2007 jamiyatu fijaanu sidqina defaraat na kër baay ñas ca Medina Baye ca atum 2018 jamiyatu fijaanu sidqina malaat na yeneen liggéey Euh, yu ni mel ci biir euh, fay euh, ñu jeexale ko ak wanale gi ñuy seen yéen kaay bi di wanale ak Medina bàyyi bu ñu sukkandikoo ci taarixu wàll yu bëri dangay ngay nemmeeku ne Eh, seenu ko njëlu benn dañuy am jafe-jafe ngir taxawal seenu mébét te mooy seenu ko woote rawatina ca dëkk ya ñu fekk baax loolu mooy waral eh, ñuy gàddaay wala ñuy toxu di sañci eh, seen dëkkuwaayu bopp di ngir mën a wéyal seen mébét lu mel noonu moo xewoon. moo waral Medina Baye soosu faydu tijaani bi nga xam ne abul abbas ahmad tijaani ci radiyallahu anhu tuddoon na ak ñëwam nga xam ne ñu bëri doon nañu fuglu ngir doon borom yàlla tànn na Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass teg ko ci loxoom ca guddik fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum 1929 la faydu bi juddu ca lew na ñeseen waaye ma nga tàkkee ca Koosi ca noonu la Mawlana Cheikh al Islam dogo ngir am makkaanam moo makkaanu makkaanam moo xam ne dana ko mën a wéyal liggéeyam loolu moo tax ci atum mu demoon na seeti kilifa ya nekk ya fi nekkoon ci jamono yooyu eh, ak eh, ak buur saalum nga xam ne ñoom ñoo moomoon na suuf si ngir ñu dogal ko fu mu dëkk bu loolu amee eh, mu ànd ak Serigne Ibra Fall Chérif Mamadou Lamine Amadou Thiam ak Njawar Jaw ma fa fukki fan ci weeru mars atum 1930 lañ njëkk teg tànkam ci suuf Medina Baye Karako la ko sanc Amadou Thiam Souleymi njëkk nekk borom dëkk ba moo fa njëkk fanaana ci ndigalu Cheikh al Islam ah, te fekk benn néeg taxawul fa ci jamono yooyu Medina Baye mi nga aju woon ci Ndofane ah, Baye mi ngi njëkk fanaana Medina ñeenti fan ci weeru avril atum 1931 gannaaw ga cheikh al islam tabbu na Baye Mahmoud mu nekk borom dëkku Medina Baye gannaaw bu ko Amadou Thiam Souleye sàkkoo ci moom ah, Baye Mahmoud yor na dëkk ba 1931 ba 1933 te 1933 nag la taalibe tàmbali di bëbb ah, di sañ ak mbokk yi ak ñenn ci mbokk yi di sañ ji Medina Baye bokk na ca ñooña ku ñuy wax mm, Abdou Salé Niass euh, moom moo fa wuutu Baye Mahmoud nga xam ne 1933 la génn àdduna Abdou Salé Niass nekk na borom dëkku Medina Baye 1933 ba 1960 ca at moom la Valdiodio Ndiaye xolu maire bu Kaolack daal di. am yéene yaatale commune bu Kaolack ba boole ca Medina Baye mu bokk ba boole ca Medina Baye boobu la Medina Baye nekk teeru nekk it benn quartier ci Kaolack ci noonu Hadi Abdoulaye Niass moo njëkk nekk délégué de quartier bu Medina Baye nekkoon na ko 1960 ba 1962 gannaaw ga doom ja Alhaji Abdoulaye Hadi Niass ñu gën koo xam ci Asjatu moo ko fa wuutu ci atum 1962 1995. te 1995 ba suñ jamono ji Barhama Niass di sët ci Mawlana Cheikh al mooy délégué de quartier bi yàlla na ko yàlla sàmm te guddale fanam Medina Baye nag nekk naka jekk euh, dëkku xam-xam la nekkit dëkku daara euh, daanaka kër goo dugg am na daara mm, Baye dafa mos a bëgg alxuraan nekk karaamaam moo tax Medina Baye. Euh, daanaka ña fa dëkk wépp euh, dañoo mokkal alxuraan ci jamono tu tànk euh, di ndono lu sax fa Medina Baye bi loolu amee Baye sampu na zaawiya sa sampu na fa zaawiya bu toll ci ñeenti ñeenti jàpp juróomi mètre loolu nekk na fa juróom-benn at ci atum 1937 nan la Baye rëdd jumaa ju mag ji ju mag ji njëkk ja. nga xam ne 24 mètres la sur 15 jamono jooju euh, ci euh, jumaa jooju ñu ngi ko sañ ci atum 1938 euh, ci teewaayu kilifay diine yu mag yu nekk ci réew mi bokk na ca Abdou Aziz Sy Dabakh ci teewaawoon Alxaaji Ibrahima Seck ca Canaba Serigne Modou Bousso Dieng di doom ci Serigne ci Serigne Fallou ca Touba naka noonu tabaxoon na fa ca wetu jumaa ja benn institut islamique Euh, boobule institut ci atum 1970 la ko toxal sàmm ñu tuddee ko euh, institut franco arabe alhaji <coughs> Abdoulaye Niass euh, ci jamono yi ñu gën koo xam ci ca Kaolack école Niass institut alhaji Abdoulaye Niass bërëb bu siiw la la ëpp ca jàngalekatam ya ñu nga génnee université al azhar boobule institut ay kilifa yu bëri génne nañu fa boo demee ca ñeenteelu xat ma ca ci ñeenteelu xat mi ci seen yéenekaay da nga fa fekk seeni tur ah, ca atum 1961 ah, la Cheikh Ibrahima Niass maye ab pàkk ñu tabax fa ab ñu tabax fa école français euh, ba ñu nopp ñu tuddee ko ko ba loolu amee dafa jël doomam dugal ko dugal dugal ko ca muy jàng tubaab ngir joxe misaal doomam jooja di Khalifa Niass nekk na fi maire bu Kaolack dëgg nag yokkute am na ca dëkk ba waaye lu mel ni cat gi ah, jar naa bàyyi jar na taxawaate ah, tey lu ëpp ñaari junne yi nit eh, ñu nga ca dëkk ba eh, mu am ay marché école dispensaire ak banque am na it ay rajo mm, mën nañ ci lim Alfayda Baye FM Almadina Almadina ah, ànd loolu yëpp xanaa Medina Baye yelloo na nekk commune d'arrondissement nga xam ne. mébét mu ñu yàgg sàkku la euh, boobu ba léegi mat na fukki at ah, ñeen fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bu gannaaw gu cheikh al islam alxaji ibrahima ñas ah, ndono la mu fa bàyyi woon ma ngay wéy di dox euh, te mooy mbaax sell bëgg yàlla ak ah, ak bëgg cheikh ahmad tidiane sharif radiallahu anhu njàng ak jàng alquran medina barhamu dëkkub leer medina barhamu dëkkub ngëneel Medina Barhaamu dëkkub Harifiya yàlla nañu ko yàlla sàmmal la loolu lee mooy li gënoon a fës ci seen yéenekaay bii di seen journal de la fayda ki leen ko doon digtal di seen mbokku Cheikh Ahmad Tidiane bi tey ah, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla yal yàlla may ñu comme mu leewtu yaatu boo xamante ni dañ ci liggéeyal Mawlana Cheikh Aliou seen chaîne YouTube la Ibrahimiya TV la Ibrahimiya TV la Ibrahimiya TV bu leen fàtte notification bi pour ngeen mën a jot suñu yeneen i vidéo